li nga xam premier ministre Ousmane Sonko dafa ordonné suspension li nga xam travaux domaine public maritime ci région de Dakar keroog nga gis mu arrêté euh, le 13 mai 2024 euh, une suspension temporaire de tous les travaux de construction sur la dépendance du domaine public maritime de la région de Dakar euh, Orphan ki loolu nga xamante Ousmane Sonko jël na ko ko jàngatee. donc xam Ousmane Sonko dafa nekk dans ce qu'on appelle et une suite logique donc dafa nekk logique parce que lu mel ni yàgg ko wax opposant j'espère que je crois même en 2014 donc euh, en 2017 autant pour moi on na fini. fii nii toutefois accédé accéder au pouvoir les travaux boo xamante ne ngi ci domaine maritime bi rek dañ koy dañ koy stoppé ba artu ñoo xamante ne ñoom ñoo daan jënd terrain yooyu parce que dañoo yor alal ay D'idem, il se permet de construire sur le littoral, de construire sur le domaine public maritime. Ousmane Sonko que, leen nous ñun toutefois bu accéder au pouvoir nous leen que da ngeen yàq tout simplement parce que ñun bu ñu ñëwee suspendre tout bu rage rager dañuy rager c'est ça une logique. tey l'arrêté bu mu génnee démb moom loolu une suite logique. et aussi de l'autre côté il est en train de démentir une information selon laquelle que les travaux ont repris, au niveau de la cornice. parce bah, que bah, Madiambal Diagne moi, je suis fii. voilà Madiambal Diagne moi les Sénégalais que les travaux ont repris ci la côte ouest moi, qui la cornice. Hmm. ils ont repris les travaux. Hmm. Ousmane Sonko ont arrêté pour démentir c'est tout mon Madiambal Diagne attention tout a été suspendu temporairement donc nous, kan la ñuy gëm <laughs> Madiambal Diagne gëm voilà. Qui parce que Ousmane Sonko aussi c'est c'est <laughs> parce que def mhm. donc ñun Ousmane Sonko lañuy gëm et non pas Diagne Diagne dafa qu'on appelle la désinformation. mom mhm. dafa désinformer mhm. la population. Moi, la presse de Macky qui était là <laughs> la presse de Macky qui était là ils étaient dans Benno Bokk C'est mhm. seen rôle mooy. ñoom mhm. ñu mel ni Madiambal Diagne désinformer la mhm. population. Tu loolu la continuer ba parce que yàgg naa ne le Diagne loolu mooy son gagne-pain. désinformer la population par la suite qui lañ koy fay. avec son journal Le Quotidien bon quotidien sa ligne éditoriale lu muy publier chaque jour ou bien lu titrer Le Quotidien da ngay sentir ni carrément ils sont dans la désinformation le journal quotidien. Je n'ai rien contre eux, mais c'est le journal-là, il est dans une pure de, désinformation. Tu à l'image de qui faut dire, du Kouko Djite, Madjambal Diagne. Madjambal Diagne, moi, Djite, le quotidien. Si Madjambal Diagne travaille pour la désinformation, mhm. mais le quotidien, <laughs> c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, l'arrêté qui a été pris par Ousmane Sonko, arrêté le bois, comment bébé sénégalais, sénégalais, ils ont plaidé. Donc, euh, euh, comment comme on le dit euh, c'était une demande sociale la population a réclamé que le domaine public maritime ken fa parce que selon loi moi, quoi wax loi moo domaine maritime ken fa parce que ça appartient à l'État du Sénégal ça appartient au peuple sénégalais donc waruñu bay une entité mu ñëw jënd parce que dañu yor xaliss wara am tour ñu ñëw jënd accaparer ces espaces là du domaine euh, maritime ñu fay tabax ay sen sen sen sen sen bâtiment ñu fay tabax un hôtel ba paré privatiser la place. <laughs> mais attends ça aussi ça je crois que euh, waruñu ko Bay mu jall j'espère que Basir Diomaye Faye qui ba mu demee à Mbour 4 il a dit la question des litiges fonciers du jàll donc tout simplement le Ousmane Sonko répondre en signant cet arrêté mooy maanaam warul te voilà c'est est tout simplement que ça. Arfan bu ñu ñëwaatee ci kàddu Madiambal Diagne dafa melni mom lam la ak lim waxat waxaat dafa woro parce que gis nañ mu publier ci page X am euh, mi ngi fay wax né c'est bien de respecter les procédures légales C'est le meilleur gage de protection du citoyen dans un état de droit dafa mel mom dafa mujjé and ak li nga xam se mom la Ousmane Sonko tek non il est obligé tu sais pourquoi Madiambal Diagne est obligé de de mu and ak Ousmane Sonko il est obligé. Parce que lui, il a des biens fonciers. Oui. madame a des biens fonciers. Même si mon dafa jàpp ne ci ay anam légal d'accord Lolu lui moo koy wax toutefois bu ñu accéder ci moom Madiambal Diagne dina dem a ci yan anam la yoree ces ces titres fonciers là ci yan anam la amee ces biens fonciers là d'où moi, moi taxaw ci micro dit quoi? wax yoon moo Léral? Moi, moo tax la madame aujourd'hui que ça soit mot d'accord avec l'arrêté de Ousmane Sonko, voilà de, le décret de Bassir Diomaye Faye, voilà la décision de Diomaye ou bien de Ousmane Sonko, que ça soit mot d'accord, voilà Mouban qui est d'accord, mais ce n'est pas le problème des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ils faut nous, Bassir Diomaye Faye, là, il faut. Les Sénégalais sont stricts aux décisions du régime, du président de la République, mais pas les dilatoires de Madjambal Diagne ça aussi il faut vous le ko mhm. pas les dilatoires de Madjambal Diagne Madjambal Diagne il est dans la désinformation il est dans des dilatoires donc sénégalais ils faluñu ko bay déglu ko sénégalais que ku le fal moom la suivre le la le donc Madiambal Diagne ça lui concerne et il est obligé de d'accord mhm. parce que même bu d'accord qu'est-ce qu'il veut lan la mën si ba si Ousmane Sonko bu génnee arrêté dakkal la construction sur le domaine maritime. Hmm. Madiambal Diagne d'accordul lan la ci mën loolu foofu laa lay waxee Madiambal Diagne ak mu d'accord ci wala mu bañ cee d'accord il n'y peut rien te ba pare moom mu ngi am ay fond ay ay bien foncier moom Madiambal Diagne il croit que les gens xamuñu ci yan anam la amee ces ces ces ces comment dirais-je ces biens foncier là hmm. mais bu ñu fa egg dina xam ni que lu muy def nii nit ñi ñoo ko dàq fuuf. temps yi passé gis nañ ko mu génn ay documents di justifier benn terrain bu mu document là ne veulent absolument rien dire ay génne ay documents kenn santu la ko kenn laaju la sa avis ngay génne ay documents di kii looy daw ba daanu lu muy yàkkanti yam yàkkamti génne ay documents yow kenn laaju la lu tax ngay génne ay documents yow kay xaaral ba ñuy egg si yow léegi buñu ñu ñëwee ba ci yow né la Madiambal Diagne yow kay leeral ci li nga amé sa sa bien foncier hmm. dans ce cas nga andi sa document yi mais taxaw ni ci micro cam caméra braqué micro nga génné ay brandir ay document lolu c'est insensé amul sens amul sens donc warul yàkkamti nahar tuuram té aussi il faut qu'il arrête de désinformer la population Madjambal Diagne il faut qu'il soit crédible Madjambal Diagne bu féké mom kilifa la dafa war a woromal boppam mu xam ni kilifa la dafa jur fii ay doom ci réew mi dafa am fi jabar jur fii ay doom mu bañ dëkkee di gàccal famille am parce que gàccal sa famille mun gëntu weesu yow ngay génn dina ñi ñi les travaux ont repris les travaux ont repris mel ni moom moom kese moo nekk fii Ndakaaru moom moo xam est-ce que les travaux ont repris Yini ñi demuñu fa les gens ont constaté comme lui maintenant pourquoi Mouya Kamti di dem ci presse les travaux ont repris Ousmane Sonko ñoo a beneen arrêté Et aussi bokk a aussi lui gagne encore ce régime le régime de Ousmane Sonko et de Diomaye war nañu travailler la communication parce que dafa Dafades, dafa ne ils pas rarement ils communiquent. communiquer leur ministre s'arrête là mais rarement ils communiquent parce que chaque fois da nga communiquer di leral askan bi askan ni que li ak si des gens mal intentionnés sortent de, nulle part pour dire que les travaux au niveau de la corniche ont repris voilà, du littoral ont repris il faut il faut un témoignage ou bien il faut un démenti il faut une communication ne porte le porte-parole du, euh, euh, du gouvernement s'arrête war na di communiquer tout le temps. à chaque parce que à chaque fois que voilà. une fausse information bu jubee. voilà mu génn def communiquer. à chaque fois des de fausses informations ba pareil le le gouvernement de de de comment ne communique pas chaque jour Madiambal Diagne génn wax information bu wérul ñom duñu ñu communiquer Mustapha Diakhaté jógee feulé wax information bu wérul ñu seetaan Boubacar Mamadou Mansali bu Thiès jógee feulé wax xibar bu wérul ñi seetaan ku mel ni Adama Fall jógee fële wax information bu wérul ñuy seetaan. est-ce que nekkul ne dañ leen jàppee ay nit yoo xam ne dañu perdre seen crédibilité ci seen wax wax fu muy egg la nekkul da ngay minimiser wax wax kenn du ko minimiser wax même bu fekkee du dëgg même bu fekkee yoo xam nga ni du dëgg mais ñaata sénégalais ñoo nekk fi ñoo xamante ne ñoom xamuñu ndax dëgg la wala du dëgg ils sont dans la tourmente dans le doute mm. bul jàpp ni que yow du dëgg wala ñii joxoo leen euh, euh, comment dire si gëdd mooy maanaam luñ ci wax kenn du du du du ko du ko du ko du ko cautionner non da nga war a di communiquer comme ça sénégalais yi xam ni que kii information bu mu jox ni baaxul c'est pas c'est pas c'est pas une bonne information c'est de la désinformation man foofu laay waxee moo tax may inciter le gouvernement à chaque fois que ñu communiquer il faut que ñu communiquer sénégalais yi xam nan la demee ak naka la c'est ça la réalité c'est ça la réalité à parce il y a deux formes de presse dans ce pays chaque jour il y a deux formes de presse dans ce pays il y a la presse qui informe vrai et réel au peuple Moi, la cette presse là qui diffuse la bonne information au peuple et l'autre presse qui est là comme une presse parallèle qui est là uniquement pour désinformer la population Moi, tax là.